إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mbokk yi ñu ngi sant suñu boroom di seede ne yàlla rek moo yeyoo ñu koy jaam di seede ni suñu yonent yàlla Muhammad jaamam la woon ba mu yónni ci ñun yal na yàlla sax di julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ilaa yawmi diin gannaaw loolu mbokk jullit suñu borom yàlla day dogal nañu ci guddik bi la nga xam ne mooy fukki guddi ya nga xamee ne nii moo gën ci at mi yëpp ca ngëneel ba nga xam ne nekk na ci guddi ya it day lambaale la nga xam ne mooy ngëneel ya nekk ca bëccëgam ba looloo tax ba mbokk julit suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam day fukki guddi yi bu masaan dugg ci moom dafa daan génn këram nga wan gannaaw la nga xam ne nii moom mooy njaboot ga dem féetewoo ak boroomam ca néegam bu tedd ba sax fa ba ba fukki guddi yépp di jeex da daan taxaw guddi ga di ko naafila takk ndigam la ci jaamu yàlla da daan wax mboolem koo xam ne nekk na ci këram mag ak ndaw góor ak jigéen kum mën a doon ñépp lañ daan yeey ñu taxaw guddi di naafila loolee mbokk jullit dañuy gis ne mbir la boo xamee ne nii jullit war na ca jéem a roy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam benn mooy màggal la nga xam ne suñu borom yàlla da koo màggal suñu borom mooy tànn lu ko neex moo tànn weeru koor ñu war ko màggal ci biir weer yi mu tànn fukki guddi ya ci mujj di la ca gën ñu war koo gën a jox itte itte boobi akaca gënoon a màgg ñu bàyyi woon ñun ñépp suñuy itte dem toog ci néegub yàlla ba féetewoo ak suñu boroom naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defe waaye nag mbokk loolu jullit xam nañ ne du yomb ci jullit ñépp su ko defee képp koo xam ne nii la ngay yor cib liggéey wala la ngay taxawee ca sa njaboot mënoo koo boole ak loolu ngalla waay foo mën a nekkit nga yëg ne yaa ngi ci jamono bu màgg yaa ngi ci jamono boo xam ne nii jëf yi yàlla dana ko ful lool ñaan yi yàlla dana ko gaaw a nangu lool loolee bu ko defee ñu góorgóorlu bokk fukki fan yi ñu bancaa neenal benn waxtu na doon suba yàlla ngoon yàlla rawatina nag la nga xam ne mooy guddi ya su dee bu nee ne mënuñu fu ñu mën a taxaw it féetew ak néegub yàlla ba ngalla waay ñu daal di góorgóorlu ba guddi ya moom luñ ca man ñu jagleel ko kémtalal kattan la nga xam ne mooy néegub borom bi sallallahu néegub borom bi subhanahu wa taala comme na ko sallallahu alayhi wa sallam daan defe loolee mbokk gis nañu gudd la nga xam ne mooy jubluwaay ba ca gën a màgg mooy xeeñtu ngir yàlla dëpp lañu ak laylatul qadr mbokk lan mooy laylatul qadr suñu borom mi nga xam ne mooy tànn lu ko neex moo tànn la nga xam ne mooy makka makka su dee yow julli nga fa benn julli suñu borom jàpp ne julli gi kat moo gën téeméeri junni ci ay julli gis ngeen amma mu daal di tànn guddi laylatul qadr ne yow sab jaam guddi gi moom loo ma ci defal danaa considéré ni def nga ko ci fanweeri junni ci ay guddi yu laylatul qadr amul te mooy téeméeri weer fanweeri junni guddi loo doon def jëf ji ca laylatul qadr amu ca lii nga def ci laylatul qadr moo ko gën ca yàlla moo ko gën ca yàlla loolee na doon lu mën a doon ci nawaafil ya ca sarax ya ca jokk mbokk ya ci lu mën a doon loolu kon julit day xencu taxaw fukki guddi yi ngir yàlla dëppale ko ak loolu waaye it mbokk jullit ci fukki guddi yooyee nga xam ne ci leen laylatul qadr nekk te la suñu borom yàlla tànnoon wàcc ci téeréem bu tedd bii di alquranul karim nga xam ne bu laylatul qadr màggee alquran moo moo tax mu màgg ngi noonu alquran moom moo tax ñu mu màgg loolu ñu bàyyi ci xel bu baax doonte ne ni léeg-léeg nga dégg ay njuumte du njuumte yu rëy gën jaa màgg njuumte nga dégg ku naan guddi gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam juddoo moo gën a màgg laylatul qadr ndax laylatul qadr alquran moo ci wàcc te bu yonent bi judduwul judduwul woon alquran du wàcc bokk loolu réer gu rëy la ci réer xaw naa nekk sax ak kéeféer su doon te ni ka nga xam ne wax nañ ko ko leeral nañ ko xujja mu bañ waaye mbokk déedéet guddi gi gën mooy guddi gi laylatul qadr moo gën leneen lu dul moom mi ngi noonu gën na ko sax la nga xam ne ni mooy trente mille fois su ko defee kon loolu mu bokk ci lu jullit war a gëm suñu borom yàlla day avant muy bind asamaan yi suuf la bindoon benn téere bind ci lépp luy nar a am ba ilaa yawmi diin loolu mooy laxwil mahfuus nga xam ne moom dong nag moo ko xam su ko defee bu guddig laylatul qadr jotee dana woo malaaka yi nga xam ne ñooy dox ci service am ku nekk mu wax la lii nar a xew ci at mi ki nga xam ne mooy malakul mawt mu ne ko samay jaam ñii ñoo ci war a dee gis ngeen malaaka yi yóbbu ruux yi samay jaam ñii ñoo ci war a dund war cee sasu mikail ma nga xam ne moom la dénk wërsëgu jaam yi jaam yi ñii ñoo ci war a am li ñii ñoo ci war a am li ca la borom bi xamal malaaka yi ñi war a dund ñi war a dee ñi war a sëy ñiy feebar ñiy tukki ñiy nibbisi ñiy texe ñiy texee di ila axiri loole lépp mi nga am ci guddi leen du qadr malaaka yi xam kumpa ak un an mooy un an boo xam ne yàlla dañ leen xamal li muy nar a xamal amma kumpa boo xam ne bu ñu boyal la kooku yàlla rek la mi ngi noonu jalla wa ala moo tax borom bi ni fiiha yufraqu kullu amrin hakim guddi googee dañ cey teqale bépp mbir boo xam ne bu xereña la suñu borom yàlla jox ko la nga xamee ne nii moom mooy ay malaakaam looloo tax ba mbokk julit mu war ci julit bi nga xam ne dafa xellu muy bàyyi xel guddi gu màgg googee màggal ko lool ndax suñu borom mi ko màggal ba jël téere bi gën a màgg ci lépp lu mas a jóge ci moom wàcce ko ca loolee bëggoon na it julit ñi daal di koy doon loo xam ne nii lu ñuy màggal la xam leen ne alquran benn yoon la wàcc suñ borom yàlla wàcce ko ci asamaanu benneel mi ngi noonu gannaaw ba nag mu daal di koy tegale ci ñaar fukki at ak ñett événement bu xew suñu borom wàcce aaya yu méngoog événement boobu waaye ci laylatul qadr la alquran yépp wàcc ci asamaanu benneel jibril alayhi salaam wàcce ko ak malaaka ya nga xam ni ñoom la àndaloon mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala lii nga xamee ne nee na soo ko dundalee mel ne nga koo xam ne nii nekkoon nga juróom ñett fukki at ak ñett di ko def loolee jullit da caa war a profité rawatina ñun xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu dund dafa gàtt yonent bi alayhi salaam nee na li ëpp sama xeet du ñu passé soixante-dix ans li ëpp sama xeet du ñu passé soixante-dix ans la ëpp ci ñoom ñu ngi faatu entre soixante ak entre juróom benn fukkaat ak juróom-ñaar fukkaat kon loolu moo tax ba suñu borom yàlla ci mbaaxam ubbil ñu bunt yoo xam ne daan ca rawe xeet yu jëkke ya laylatul xadr boo màggal quatre-vingt-trois ans boo ci amee dix huit cent trente nga noonu boo ci amoon tey jii vingt laylatul xadr mille six cent nangam loolu yeneen ci yàlla noo dund ko kon ñëw profitoo heure bu ñu yàlla dëppaleeg fukki fan yi ñu góorgóorlu ndax xamuñu ndax di lii mooy nar a nekk suñ dernier fukki fan ci kaw suuf kon lu ñu mën ci lu baax ñu def ko ca loolee muy guddi gu barkeel goo xam ne nii ku ca dellu ci yàlla yàlla subhanahu wa taala dina barkeel ay mbiram mi ngi noonu muy guddi goo xam ne nii suñu borom nee na dana wàcce malaaka yi ñu ànd ak seen kilifa ñoom ñëpp muy jibril alayhi salaam tey jii da ngay xool dëkk yi bii buñ ne woon tey président Amérique mooy ñëw buñ ne woon tey président Russie mooy ñëw ni ñuy yaatale leeral gàttandoo ko mbokk ana nag suñu borom bu ñu annoncé ni Jibril alayhi salaam mi nga xam ne mboolem asamaani juróom-ñaar ak la ca nekk ci des milliards de milliards de malaaka ñoom ñépp mooy seen kilifa suñu borom ngir teral jullit ñi ci kaw suuf dana wàcc jibril mu ànd ak malaayika al muqarrabuun ñu wàcc ci kaw suuf di sabbal borom bi di ñaan yàlla jéggal jullit ñi di ñaan yàlla yërëm jullit ñi loolee mbokk mbir la moo xamee ni nii amul kenn koo xam ne borom xel la buy sàggane ba ngëñal boobu mu bañ caa bokk ca mooy góorgóorlu ba téye suñu bopp ci lépp loo xam ne merum yàlla ma nga ci waaye góorgóorlu ba lépp loo xamee ne ni nit mën nañ ko ci lu baax ngalla waay ñu góorgóorlu daal di koy def bokk na la gën màgg ci lu baax loole mooy la nga xamee ne nii suñu yonent alayhi salaatu wasalaam wax na ko yonent bi nee na man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zanbi ki taxaw weeru koor yépp naafila ko ànd ak ngëm yàlla ak yaakaar pay yàlla dana ko baal ay bakkaar waaye mu jël ci benn guddi mu ne man qaama laylatul qadr imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zanbi mi ngi mel ne waa ji taxawoon weeru koor vingt neuf jours di ko naafila yow benn naafila ba nga naafila ci leylatul qadr te moom defu ko yaa ko ëpp daraja ca yàlla loolu moo tax ba ñu war a góorgóorlu suñu kéemtalal kattan na am weeru koor gi yépp waaye nag rawatina fa nga xam ne yaakaar nañ fa leylatul qadr te loolu ñi ngi ko yaakaar ci fukki guddi yi loo xam ne nii daanaka ah xeet bi xaw nañ ci dëppoo su ko defee ñu góorgóorlu ci jéem a dem ci néegi borom ba comme na ko yonent bi ak sahabaam doon defee góor ak jigéen nekk di jaamu yàlla falilahi alhamdu bokk na xéewal bu ñu yàlla defal mooy jàkk ji ñu ngi fi taxawal ay tarawih waaye ñu ngi fi taxawal ay ay qiyaam yoo xam ne nii suñu mbokk jigéen ñi yàlla na yàlla fay leen malgré seen responsabilité yu bëri yañ yor dañ ko fay bàyyi ànd ak góor ñi ñu daje fi une heure du matin di rukkoo ak sujud di yaakaar suñu gëneelu borom di ragal mbugalam ba ba la yàlla soob ca waxtu wa nga xamee ne nii ca la ñuy jeexal lañ tànnoon ci ay isib war koo jàng loolee mbokk bokk na ci it loo xam ne nii lu ñu ciy dabu mooy fexe ba na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon def mooy alquran mu dégg lépp ci jibril alayhi salatu wasalaam daan ko nafar ak moom mooy ñi fexe it ba jàgg ji mooy ci fukki guddi yooyee da ngay gis ne alxuraan bi yépp dañ ko ci jàng donte ne jubluwaay ba du loolu waaye ngir rek barkeeloo déglu kaddu borom bi jalla wa ala loolee mbokk dafa nekk ngëneel yoo xam ne nii bépp julit war naa góorgóorlu di mën a fexe bay bokk ci loole mbokk li nga xamee ne nii moom mooy laylatul qadr ak la nga xam ne fukki guddi yu mujj yi bokk na ci loo xamee ne nii ku nekk war na ca bàyyi xel mooy bari lool la nga xamee ni ni mooy ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala jaam bi léeg-léeg am yoo xam ne moo la tënk ba la nga xamee ni ni da nga koy ñaan sa borom borom bi subhanahu wa taala bañ la koo jagleel lan moo waral loolu moo di ne ni am na ay bakkaar yoo xam ne dox na sa diggante ak loolu mi ngi noonu waaye dafay am ay guddi yoo xam ni suñu borom yàlla ci njëggalam day gën a yaa yaatu bakkaar yi jaam yi looloo tax ba ab jaam man ko caa ñaan mu nangul ko loo xam ne bu doon leneen a du ko nangul comme ni muy dala rek ci la nga xam ne nii mooy lenn ci ay mbindaa fonam su ko defee suñu borom yàlla moo wax ci téeréem bu tedd bi te bam ñuy jàngal koor te mooy daal di ciy dugal aaya boo xam ni mooy wañe ne ndekete weeru koor ndekete qiyaam bokk na lu mu war a àndal mooy ñaan moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i ida da'an ay yow yonent yàlla bi samay jaam buñ ma lay laaj yàlla waxul yonent bi nee leen samay jaam buñ ma lay laaj daa dégagé yonent bi fii ne ay yéen jaam yi inni qarib ndax jaam heure buy jóg di ñaan yàlla warul am kenn kum doxale digganteem ak suñu borom jalla wa ala xanaa yonent bi moom nga ñaanal bokk na lu ñu sunnal ci ñaan mooy nga ñaanal yonent bi waaye sa borom dong ngay ñaan te sa borom dong ngay jublu su ko defee suñu borom mu ne man jege naa leen damay wuyu ñaanu ku may woo loolu muy wane ni insha allah képp koo xam ne jullit nga nekk ci weeru koor wóor weeru koor rawatina di taxaw guddi la ngay ñaan sa borom sa borom yàlla danu la ko may léegi-léeg nag benn waay mu ne waay man day maa ngi ñaan oto boobu ba léegi aw ma oto déedéet mbokk julit suñu borom yàlla subhanahu wa taala boo ko ñaanee mu may la waaye du la may lu dul la gën ci yow waa ji mi ngi ñaan lii suñu borom yàlla xam ne lii gënul ci moom mu daal di koy jënal la gën ci moom tey benn xale mën na réussir ci examen ñëw papa man kat ab vélo laa bëgg nga xam ne wala wóorul nga ne ko kaay xaaral ma jëndal la ab ordinateur may ko ordinateur loolu it moom suñu borom noonu lay demee yow jaam heure boo ko ñaanee waatal amal yaqin ne yàlla may na ma imma li ngay ñaan ma mas la koo may wala mu may lu ko gën wala mu musal la ci catastrophe boo xam ne musoo koo ñaan yàlla tey jii benn waaye ngi dem ci benn oto ñu dem daje camion ñi nekkoon coote bi yépp dee moom mu wàcc taxaw ndax mës na ñaan yàlla accident ba may nar a def jom ñaajoo musal ma laa mus ko ñaan yàlla waaye mën na am yàlla nga ko musalee lam doon ñaan ci xiiwal te yàlla xañ ko ko donte ne bokk na la gën a màgg lépp mooy ñaan yi yàlla dencee la ko ba àllaaxira amul benn jaam buy ñaan yàlla ñaan googe yàlla defalu ko ko ci àllaaxira defalu ko ci àdduna lu dul da ko koo dencal àllaaxira ngir far ci ay bakkaaram yëkkati ay darajaam ci kaw ci kaw aljanna yi loolu tax ba mbokk julit lii nga xam ne mooy fukki guddi yi fu ñu toll nañ koy taarale zikrullah waaye nañ koy taarale ñaan waaye rawatina nag la nga xam ne mooy ci guddi ya waaye rawatina nag yan ci gën a yaakaar ne laylatul qadr ca la nekk rawatina ya nga xam ne mooy da caa tóol muy ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom-ñaar ak ba nga xam ne mooy ñaar fukk ak juróom-ñeent yii ca lañ gën a yaakaar laylatul qadr kii di yaay Aïcha radiyallahu anha mu ne waaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su doon te ne man dama jàppoon ne guddi gi mooy laylatul qadr lan nga ma sant ma ñaan ko rasul sallallahu alayhi wasallam na ko booy ñaan daga naan yàlla yow day allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ay yàlla yow yaay kiy jéggale te da ngaa bëgg di jéggale ay yàlla yàlla nag ma jéggal mbokk yàlla kum may al afu kum jéggal mooy dalay may aafiya mooy du la topp ci say bakkaar du la topp ci sa gàttañlu la nga xamee ne nii mooy jàmm dala koy jagleel ba nga xamee ne doomu aadama gannaaw ngëm yàlla amul lu gën a màgg aafiya loola tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñu ñaax toujours sallallahu al aafiya day leen ñaan yàlla aafiya aafiya mooy yàlla musal na la ci lépp luy lor àdduna lépp luy lor bàmmeel lépp luy lor alaxira loolee te képp ku yàlla musal àddina mooy sa wàccuwaay looloo tax ba ku nekk ci ñun war koo bàyyi xel soo ko mënee ci arab ba xëyrul soo ko mënul bu ko fàtte ci langue bi nga xam ay yàlla yow yaay aji jéggale di aji bale ay yàlla ci yow da ngaa bëgg di bale da ngaa bëgg la nga xam ne mooy ak bale yàlla yàlla nag ñu baal yàlla nag ñu baal yàlla nag ñu jéggal allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni lii mbokk jullit dañuy gis ni rasul sallallahu alayhi wa sallam loolu la jàngaloon soxnam soosee te jàngalu ko lu dul lam jàpp ne lii mooy la gën ci loo xam ne nii jullit da koy ñaan gannaaw loolu it bul fàtte ñaanal sa bopp ñaanal sa njaboot ñaanal say mbokku jullit rawatina ña nga xam ne ñoo àndoon ak ñun di dund ci kaw suuf ca tey seeni jëf yàlla dagg na ko amul lenn luñ gën a yaakaar lu dul ñaan yi nga xam ne day jógee te la nga xam ne mooy seen mbokk jullit loolee mbokk ñu góorgóorlu di ko bañ a fàtte fu ñu mën a toll di ñaan yiwu àdduna waaye di ñaan surtout la nga xam ne mooy yiwu àllaaxira ñaan surtout xat-xat yooyu am àllaaxira yépp suñu borom yàlla musal ñu ci loolee loolee mbokk kon ñu xoolaat bàyyiwaat xel lañu ubbee woon mooy rasul sallallahu alayhi wa sallam day moom fukki guddi yi da ko doon jagleel lépp boromam subhanahu wa taala doonte ne lislaam nanguwul doomu aadama bi dogu nekk ab labbe dëddu àdduna loolu islaam nanguwu ko lu dul ci itikaaf mooy la nga xam ne moom mooy weeru koor julit bi dagg mboolem ay mbiram daa di ñëw ci la nga xam ne mooy itikaaf fa lillahi alhamdu tey jii bu ñu lay nettali lenn ci ay ay dëkk naar yi da nga ci gis ay patron yoo xam ne ay milliardaire lañu waaye bu weeru koor jotee dañuy arrêté seen contrat yépp daa di féetewoo ak seen borom loolee ngiree def ko la nga xamee ne ni moom mooy jagleel ni suma diine moom a gënal lépp waaye nag mbokk julit su doon te ne yow weeru koor bi yëpp mënuloo ko su doon te ne la nga xam ne mooy fukki guddi it mënuloo ko ngalla waaye heure boo amee temps libre heure boo amee temps boo xam ne nii kii na ci yow deel ñëw toog ci jàkka ji di jàng sa téere boroom rawatina am na dars yi ñu fiy def diggante takkusaan jëm timis ngalla waaye fexe loolu bu mu la raw day nekk ngëneel bu gën a rëy ngëneelu rëy a rëy ñu ngi leen di ñaaxit seen kemtalal kattan koo xam ne nii mënoo fanaan si ci jàkka ci ngallaawaay am na ay jaamu yàlla yu rëy bokk na ca loolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne kii dem julli fajar ca jàkka ja day ku mel noonu mel na nga ni koo xam ne da ngaa taxaw guddi bi yëpp di gën a naafi la gis ngeen kii dem julli ca jàkka ja gee mel na ne genn wàllu guddi gi da koo naafi la waaye ka dem julli fajar ca jàkka ja gannaaw ba toog fa di def zikrullah di def zikrullah ba jant bi fenk ba kawe nga daal di jóg julli la nga xam ne mooy ñaari rakka jamono bi ma wax ak yéen à peine ay sept heures dix nga julli ñaari rakka suñu borom yàlla dana la may yoolu ko at yoolu ko omra tey jii gis ngeen ñu bëri ñu ngi leen tàggu jëm ci omra ba na am fa lillahi alhamdu yal na yàlla nangul ñu nangul leen waaye rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam na ne du jaam yépp ñoo man dabu ngëneel yépp looloo tax yàlla may ko ay la nga xam ne ay ndollant yoo xam ne julit bi dana ca dalal xelam ca bokk na ca loolee nga xam ne wax nañ leen ko yal na yàlla wërsëgal ñu lépp lu muy wàcc ci shahru ramadan yal na yàlla jox ñu ca la nga xam ne moom mooy la ca gën lépp lu muy wàcc ci fukki guddi yi ci yiw yal na yàlla tànnal ca la ko gën lépp lu muy wàcc ci laylatul qadr yal na yàlla tànnal ñu ca la ca gën yal na yàlla fegal ñu ay nattu ak i tiis adduna ak alaxira yàlla mooy jéggale yal na ñu yàlla jéggal yàlla mooy bale yal na ñu yàlla baal yal na ñu yàlla fajal mboolem aajo yi ñuy jëriñ الدنيا والآخرة مين آفية في الدنيا والآخرة اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين